abonné leen ci seen seen YouTube Partout TV moom mi leen di jox Partout TV Partout TV euh, ana lan moo war a nekk taxawaayu ndaw ñi ci jamono boo xam ne gis nañ que ne kat réew mi di Sénégal ma ngay commencé di am ay ñëgg-ñëgg maanaam ay jiixi jaaxa ci ay xalaat ay jiixi jaaxa ci doxaliinu politique yooye yëpp di mbir yoo xam ne bu ñu ko boolee day wane que ne yoon jamono bi ñu toll nii fii ci réew mii di Sénégal dafay xaw a tumuranke li koy firndeel du lenn lu dul ay arrestation yoo xam ne rek booba ba tey mi ngi wéy di continuer comme ni ko Guy Marius Sagna jotoon a xamle 700 détenus kon nag buñ ko sa bëggee boole moom mii di Guy Marius Sagna du ko beet Pape Alé mën nañ ne moom it jamono bi ñu toll nii comme ni nga xam ne rek noonu la ko daal di fësalee ne moom dafa nekk koo xam ne rek ragalul biir kaso ndaxte li muy def daf koy def ànd seeg dignité daf koy def ànd ceeg fierté bu mat sëkk ndaxte réew mii di Sénégal lay liggéeyal bu kenn xamul boppam moom mu xam boppam te xam ne la muy liggéey jaral na ko ko kon naka xoqatal ak xor ñoñal bu manti am jëm ci côtéem na leen leer ne loolee faale ko moom mii di Ousmane Sonko di day mbill gi te mën nañ lu jig njaak moom moo di njaak ay avocaam janoo ak ñi nga xam ne ñoom ñooy askanu suñu gaal yëkkati seeni kàddu gannaaw conférence bañ doon amal kaka teewee di Juan Branco mi leen defal surprise bu mag est ce que nag loolee dina tax ñu génn si ñoom ñii di l'avocat yi ndaxte kat mën nañ ñe mbooloo booloo wat weer loolu la olof Njaay wax ndaxte kat ñaara man kenn te ñett du bëree ñoom ñii di l'avocat yi ña nga àndandoo nag sot sotloo kii nga xam ne rek moom mooy procureur de la république gannaaw kàddu mu yëkkati woon ni ki démb ñoom dañoo dikk daal di koy faxas ba mu seet wecc mën nañ ne sax ña nekk ca fac droit jamono bii ñu toll nii mën nañoo daal di def seeni commentaire yoo xam ne ñi ngi ci formation boo xam ne pareegul di leen di jaajëfal